amis yi di internet yi ba Sénégal actu alxamis 9 novembre 2023 dal leen ak jaamu ci xibaar la jot a fees ci xibaar yi nag dañ koy dox ak Ousmane Sonko ay kuréel yu mag a mag a mag ñuy tudd IP ñu koy wax Union internationale de parlementaires nekk nag eh, kuréel boo xam seen kuréel bu mag mag la te gi Imari Sagna tamit demoon fa ñoom nag isaan bi àdduna ci situation Ousmane Sonko wax la nag Ousmane Sonko nag état bu Sénégal nan ko jox ay àqam ak yelleefam Ousmane Sonko dafa war a bokk nag ci élection président yi war a am atum 2024 ñoom ñoo di UP eh, boobu daal ñoom rek loolu la taxaw wax na nag dina yónnee sax kuréel boo xam si nag dina ñëw waxtaan ak président Macky Sall ak nag amal liggéey nag bépp parti bu nekk Sénégal nag ñu koy saytu jaa ngeen